asbillahi min asheytaan irajim bismillahi irahman irahim wa sala allahu ala sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkin mbokki yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi lislaam muy salaamaaleykum wa rahmatullah di tàmbali nuyu bi ak siyaar bi nag ci saahibul fadila cheikh mahamadul muntaqa di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak mi kilifak barab bi di ñaan yàlla moom it sunu boroom yàggal taxawaayam lool waaye itam noonu la ñuy siyaare jawriñu barab bi di sëriñ Cheikh Mbacke Madina di am mbégte bu baax nag ci jotaay bii nu am toog ak sunu jawriñ muy sëñ Ahmadou Ndiaye jotaay bi nag liy sabab si mooy fàttalente loo xam ni daana fi jaar naka jëkk euh, te doonoon ndigal moo dëgmalaat ñu am yéene fàttaliwaat taalibe yëpp bis boobu ak sabab si muy ñaari fan yi nga xam ne ñaari fan ci kore gi te ñu daan ci amal siyaar boo xam ne daanañ ko amal fii daan ci feddali ak a fàttali ndigal loo xam ne Cheikh na Ahmadul Xadim moo ko joxe woon ci njaarim ndigal li nga xam ne moom la sëñ bi joxe woon it gi dañu mën a ñàkk ndax alxuraan moo ne fa sakkir fa inna sikra tanfaxul muminin sëñ bi ci njaarim la waxoon ne faqad amara jamiihal muridina xayri sibyaani wa niswaani faqat bi an yaxruja kulla saxsin minhum samaniya wa ishrina dirhaman li nafsihi wal yanwi fi saalika najaata min annaari wa man qadra wa wajada falyafxal wa man lam yajid falyatlub min xayrihi an yastaxdirahu minhu suma imtasala man sàkka fii haasa fala yàllu man na ilaa nafsahu sëriñ bi li mu wax ci tënk bi rek mooy digal na mboolem murit bu góor ak bu jigéen mag ak ndaw kenn ku nekk ne génne ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett na ko mag ñi génne génneel ko seen bopp génneel ko seen njaboot mu ne ku ko ci man te am ko na ko def ku ko amut na ko wuti te def ko àgg na ci lépp sax boo yaakaaree fee nga lépp ko te def ko te nee na yow mi koy def nag na nga ci yéene mucc ci sawara nee na lii mu wax nag koo xam ni kii nee na sikki sàkk nga ci bul yedd kenn ko du sa bopp. lool yi nag lépp luñ mas a def ci yoon wi ci ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett yooyu lañ ko defe Cheikh Moustapha it taxoon na bi mu tàmbali jumaa ji loolee la feddaliwaat lool yi nag sëriñ bi mi ngi ko waxoon gannaaw julli suba di bisub àllarba dëppook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu ci jumaa ji ci njaarim ci la ko waxe woon kon nag ndigal loolu sëñ ma moom la diwaanul muridina jëloon doon ci doon ko dundalaat bañ dëgmal ñaari fan yi korité bi ñu war koo fàttaliwaat mbooloo mi war ci amal siyaar kon nag sëñ Axma loolu yi moo doonoon jotaay bi ñu doon tàmbali nag sunub laaj ci ginnaaw bi sëñ bi joxee ndigal yi ñaar fukk yooyu ak juróom-ñett te ndigal di su ko yeesal dañ koy wéyal kon lool yi moo doonoon sababu jotaay bi sëñ Axma ñu la ci liggéey bi ci fan lañ ci toll ak doxalin wi nan lañ ko sàkkoo ak nan la ko kilifa yi bëgge bisimilah.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 di ci jiital kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha di nuyu bu baax jëwriñam ji ko nekkal fii Daarul Xuddoos di sëriñ Ahmadul Muxtaar mu nekk ci bopp njaboot gi di nuyu sëriñ Cheikh Mbacke Madina yi jëwriñi kër gi di ñaan suñu borom gën leen a taxaw may leen wér ak gudd fan ba li leen mag ñi bàyyee ñu di ko sàmm yàlla bu ci dara suut yan nañ ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ña doon méwat bi barakatu Cheikhil Xadim di yëkkati sunu kàddu rek muy kàddu fàttalante kàddu laayante biir mu jëm ci taxawaay yoo xamante ni danoo fekk mag ñi doon ko taxaw démb ak bërki démb te Serigne Cheikh Mbacke di wax ni ki wóotu dara waru ko lu dul sàmm lim fi fekk wa ma alal xalaf illa an yasuna asara salaf mu doon loo xamante ni ci sëriñ bi la bàyyi ko woon sëriñ Basiru wax na ko léegi muy ci ak mujjam ci njaareem la sëriñ bi joxe woon ndigal ni bépp taalibe bu aju ci moom na joxe ñaar fukk ak juróom-ñett booba itam liggéey yam doon simb mu ne ci kanamam mooy naalu mag wi ci péncum tuuba di jumaa ji te tubaab yi xamaloon ko ni ko ñu ubbi compte faaw ñu dajale xaalis def ci liggéey bi door a tàmbali kenn ku nekk xam jumaa ji yitte ji mu doon ak ni mu toll ci sëriñ bi fekk itam ca at ma ko jiitu maam Cerno Birahim andi woon fa addiya ñaar fukki junni ak juróom-ñett sëriñ bi dénkoon ko soxna suñuy wax mu bokkoon ci bëkk néegu Sëriñ Tuubaa bokkoon itam ci nga xam yoroon na bunt daawees na jaar ci buntam di dem ci sëriñ bi sëriñ bi laaj ko loolu mu indi ko mu wàññi ko muy ñaar fukk ak juróom-ñett sëñ bi ni kon na ku nekk joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ku ko mënta joxe ka sa kilifteef na la ko joxe la kon ci kaw murit yëpp la ko gàcc ni leen képp koo joxe itam mooy sa njot ci sawara ndax yéene ji ak pas-pas ba kolal te innamal amalu binniyaat borom daaru waxoon na ko sax ni ko ndax ndigal li mënees na koo yaatal ne sëñ bi ni ko mën naa dem ba kilikoro maanaam mën naa dem fépp ni am kon konte ko ñu cay barab bañ a bokk mooy waa baa ndax ñoo ma dëkkal ci sama dëkk ba kon mel ni waa Touba am nañ ñaari ñaari xaas mooy dëkk dëkkal Sëñ Touba ci dëkk bi ak man gi nu suñ borom man loo ñaar fukk juróom-ñett yooyu yi ñu def ko te yéene ji moo doon projet yi nga xamante ne ni moom la fi sëñ bi bàyyi woon te ñu war koo def te finance di ko def nu dugal ci suñ loxo loolu moo moo moo doon yitte ja foofu la tàmbale woon yàlla dogal itam bi nga xamante ne ni sëriñ bi ñibb si na Tuuba te bàyyi fi yitte juréy jooj yi waaye teeloon naa joxoñ njaboot gi luñ bëgg fu ñuy jaar ba am ko ndax doon na leen dawale yu bari ni leen am na loo xamante ni su ma ko nangu woon tubaab yii ma séqalat nu ñoo koy liggéey ba jox ma ceeb yi waaye na ngeen moytu ndimbalul koo xam ne su leen dimbalee seen ngor dana ci des wala seen diine wax loo ni itam ni leen wolof day wax ni ku la mënal sañal la waaye yàlla nay kala war a sañal looloo taxoon mu wax leen ni lépp lu ngeen di sumb na ngeen ko sumb ak seen dooleey bopp yaakaar ci ndimbalul suñ borom ba keroog suñu borom di ñëw ak ndimbalam waaye wan leen nag wan yoon mooy kenn ku ci nekk fa mane mu defe fa loolu moo tax ginnaaw boo xamante ne ni sëriñ bi dëkkaale na ak boroomam Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo ko jëkk a wóotu salaat yeesalaat liggéey boobu yi nga xam ne moom la fi sëñ bi bàyyi woon te mooy jumaa ji jumaa ji laata sëriñ bii dem tubaab yi dañoo suspendre autorisation bi arrêté liggéey bi ba ginnaaw avril 1927 ca mois de juin juillet ja sëriñ bi dem bi Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëwee nag nekkaat ci yitte jooju ndax sëriñ bi batale woon nag ko ne woon na ko sama loxo damm na ci nag ci sa loxo damm te muy liggéey boo xamante ne ni ci aw làmmiñam la bàyyi ko tàmbalee ci itam ci ay jëfam yu mu dajale def ca euh, ci ñaari fan ci kor yi ci 1932 itam sëñ Moodu dajalewaat njaboot gi soññi leen ko ndax booba fekk na lijjanti bi yoonu saxaar gi féete na boor ba yoonu saxaar wi agsi na mu dëgmal liggéeyu jumaa ji nag ndax yoonu saxaar gi moom jumaa ji rek ko taxoon a jóg amut soxla ci voyage waaye matériel bi indi bi ñu indi Touba te muy liggéey yoon jumaa ji moom lañ ñu ko woon mënta ñëw te yoonu saxaar amut kon yoon woo xamante ni nii jumaa ko tax a jóg benn lëkk la muy tuubaa yoon woo xam ne jumaa dong ko taxoon a jóg boobu nag la wax njaboot gi ni leen dëgmal naa ko te dootuma ko woon gannaaw lu ma am danaa ko ci def lépp lu ma waay jox danaa ko ci def ni leen itam lépp lu waay man na ko ci def daadi soññeet tool àllarba yi soññi seex si soññi njaboot gi soññee itam jawriñ yi fépp loolee nag moom la ni barkeloo ba nëga ni ndigal du màggat nga ko xasee jox am na loo xamante ne ni avier la te sëñ Moussa daan wax ni sama ndigal du am rakk te ferut ndigal lii nag du ndigal luy fer ndax bëgg-bëggi sëñ Tuubaa yi mi ngi fi te lépp diine rekk la te loolu itam duñ bàyyi kenn duñu ko defal noo koy def dëgg la am na ñu suñ borom manegan ñoo xamante ne ni mën nañ koo def te kenn du ca doon dara waaye gënaluñu ñu gënal mooy lépp lu nuy def lu tuwaay man def ko ci suñ borom boole nu fay ndax loolu lan nu jàngal loolu itam lan nu wan foofu itam lan nu tegoon moo tax bi yàlla dogalee sëriñ Ahmadul Muxtaar nekk ci boppu njaboot gi ñu lëkkale buntu kër yi sëñ Muusaa yëpp tudde ko diiwaanul muridina moom moo nu jox tur woowu ngir nu barkeeloo ko ca tur wa nga xamante ne ni moom lañu fi jëkk a taxawal ci yoonu murit muy kuréel guy lëkkale mbooloo tudd diiwaanul muridina fii xidmati xayril aalamina ñu taxawal ko ci 1941 ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Moustapha sëriñ Cheikh taxawal ko ngir lëkkale yoon wi tur woowee la nu sëñ Ahmadu jox ànd bi itam di farata ci ñun ndax ki nga xamante ni moom lañu suñ borom booleel nu nekk ci aw awanagam di Cheikh Mouhamadul Moustapha yitteem jëpp moo doon takk njaboot gi mu doon wenn say ki war a jiitu jiitu ña ca war a topp topp ca takk goog yi mu doon wenn sayit dara du yitteem lu dul li fi sëñ Tuubaa bàyyi ci ay naal nu nekk ca ba keroog suñ borom di ñëw ak coobareem loolu itam tax na njaboot gi jël bis boobee def ko bisu màndarga boo xamante ne nii su siwaatee danañ soññ mbooleem njaboot gi aju ci biir kër gi ñëpp ñu daje ci penc mi yeesalaat sunu pas-pas yeesalaat sunu jaayante waaye danañ soññ itam mbooleem njaboot googu yi itam yitte jooju yi di saa quarante yooyu kenn ku ko man ku ne nga defal ko sa bopp te mooy weer wu dee sëñ bi benn yoon la ko doon laaje waaye dafa doon awan aw yoon ginnaaw ay liggéey dafay nekk yoo xamante ni nii du dakk nag dañ koy def weeru dee kenn ku nekk dagg ko at mi di cent 1680 ñu ne ku nekk na ko joxe ku ko mënta joxe itam kala yor sa kilifteef na la ko joxeel loola itam buñ ko dajalee ci yitte yi rek la dem yitte yi ci ci jiitu mooy bésub sëñ Touba bii nga xamante ni ci la fanaan si woon Touba di na muharram bokk na ci taxawaay yi gàmm bokk na ci taxawaay ndono yii nga xamante ne ni moom la fi Cheikh Mouhamadou Moussa bàyyi muy ay jeexital yu bàyyikoo ci moom wala yu jeexital yoo xamante ni daf ko yoroon mu bàyyikoo ci sëriñ bi itam lan ca man ci saytu ko suñ kamtalaayal kàttan loolu itam ci lañ koy taxawee kon yitte la yoo xamante ne ni sëriñ bi moo ci joxe ndigal ànd ko ak ñun bàyyiwu ko itam ak ñun digaluñu ko itam dem toog waaye daf ko ànd ak ñun ànd ko ak njaboot gi loola nag moo tax bi mu jubsee ndax ñaari at yi wopp ji amoon gàllankoor taxoon na daje yi amut waaye ñu cotisation yi moom dañoo continuer woon di ko laaj waaye daje bi incha allah nu fa yéene nag ci ñaari fan di kori gi mu ngi woowaat bépp koo xamante ne nii ci kër gi nga aju wala ab soppe nga mbaa wëllëre boo xamante ne nii jàpp nga ne ameel nga Cheikh Mouhamadul Moustapha bor boo ko war a fay ñoo ngi lay ñaan sa teewaay ci jataay boobu ñoo ngi soññee itam képp koo xamante ne nii ci biir kër gi nga aju ci wanag wi cotisation yooyu itam nga di ko jox ndax yitte yooyu rek lañ ci def dëgg la am nañu fi suñu borom manegan waaye sëñ Moussa daan wax ni lu yunfiqa soo saatin min saati fa man qudira alayhi fal yunfiq ma ataahu llah loolu suñ boroom a ko wax muy alxuraan waaye moo Moodu bari na lu mu ko daan wax mooy kenn ku ci nekk na jëfe fa kemtalaayil kàttanam ku suñ boroom mane gan tam nga def lu ëpp loolu mooy waxuñu rek nga joxe 140 yi yam ca wala 1680 yi yam ca koo xamante ne ni sa man-man ëpp na loola itam ñoo ngi lay séentoo foofa te xam ni defaloo ko kenn sa bopp rek nga ko defal man amila saalihan fa li nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum man ihtada fa innama di li nafsihi waa anna laysa lil insani illa ma shaa wa anna sa'yuhu sawfa yura te sëñ Moussa daf daan wax ni def lu baax fépp la baaxe def lu baax fépp la baaxe waaye tuubaal la gën a sakkane ana wax itam ni eh, lu baax moom lu mu tuuti tuuti def gaa gën bàyyi ga ab safaan itam lu mu tuuti tuuti bàyyi gaa gën def ga moo tax noo ngi woo mboolem taalibe Sëñ Tuubaa yëpp ñu dugal ci seen loxo nga xam ni ci yitte yi rek lañ koy def muy jeexital yi nga xamante ni noo fi nekk ak taxawaay yi nga xamante ni warut kenn noonu la war nu dajale suñ doolee fexe ba kenn ku nekk def ci sa yëf ngir bu ëllëgee foo tàllal sa boo ñu man laa fay loolu rek moo tax ñu di ko def bu ko defee ñu bàyyi kàddu gi ak sëñ Basiru ba mu dellusiwaat. jërëjëf sëñ Ahmadou ci leeraanga yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko ci xam naa danaa del dellusiwaat ci sama ñaareelu laaj mel ni Cheikh Moustapha Euh, julli di bennoo da ko yittee loon lool diwaanul muridina bu njëkk ba nga xam ne moom lañ barkeeloo ci diwaanul muridina bii dafa mel ni maanam yoon bépp ko seqoon lañ ci jublu woon it mooy benn la ñëpp kon loolu itam sëñ Ahmadou daa mel ni dana mat a fàttali tuuti euh, ñi nga xam ne ñooy génération bii ñu toll te yu bari di xew ci ñàkk ànd ak ñàkk déggoo mu mel ni itam diwaan boobee dana mën a fàttali ngir ñu defal ci am njàngat sëriñ Ahmadou waaw jërëjëf euh, sëriñ Bassirou loolu itam mat nay fàttali bu baax a baax a baax a baax ndax ab liggéey la boo xamante ni nii bu desee gannaaw dara du baax te mooy fexe ba takk jullit ñi ñu doon wenn say bu takk jullit ñi jafe itam ñi nga xamante ne ni ab kuréel lañ ci biir jullit ñi tuddoo ay murit te sëñ Tuubaa doon seen jëwriñ ñoom war nañoo taxaw ci takk ko mu doon wenn say ndax bu ñu xoolee njëlbeenu lislaam day mel ni fukki atak ñett yu jëkk yi ci màkka julli xewut woor xewut natt asaka xewut dara xewut benn la jullit ñi dong moo xew ak tawxiid wéetal yàlla ak boole seen bopp loola nag dafa mel ni sëñ Moussa daf ko donn kenn ku ne xam na ko ci takk yoon wi mu doon aw say ndax wóor na leen yoon wi bi sëñ bii dem bu ko takkul woon mu doon aw say naga ni moom léeb ak lupp lay doon benn jeexital bu ñuy wax bu dul jàng sëñ bi ci histoire mën naa bañ am waaye mu fexe ba lëkkale ko ak euh, mag ñi nga xamante ni ñoom la ko sëñ bi boole loon ñu takk ko ba mu doon wenn say mu jiitu na ci kanam ñi ca des ñëpp sàppe ci gannaawam waaye seeni sànce mooy joxoñi sëñ tuwaay ñor googu yi ko ñor nag daana tax muy dénk njabootam ci ñu ànd doon benn xamaloon leen itamit li ngeen bëgg ci suñu borom te mun leen koo ñàkk te mooy ridan laa suxta baada ngërëmal yàlla loo xamante ne ni merum suñu borom amut ca gannaaw ni leen mi ngi suñu borom jox ma ma ang ko téye waaye mënuma leen koo jox te benn benn wu leen li fekk àndu leen rek ci lu leen boole lay nekk kon dañu xam ni li nu bëgg beru am ko yombut li nu bëgg a mucc tam beru mucc ci yombut ba taxoon na mu doon wax sëñ Cheikh mi mag ci ak njabootam Euh, ni ko adduna dana soppiku dama bëgg bu adduna soppiku nga jiitu sëriñ topp ci yow ndax da ko mën sëñ Cheikh ni ko danaa ko mën wéet ak sëñ Bàkki Madina itam wax ko loolu ni ko adduna day soppiku te bu adduna soppikoo ma bëgg Cheikh jiitu nga topp ci moom ndax da nga ko mën mu ni ko danaa ko mën ginnaaw bi mu boole leen ñoom ñaar ak jëmmam ñuy ñett mun leen la ma doon kenn kenn ak yéen laa bëgg nu wasoo ko adduna dana soppiku te soppiku la baaxoo ma bëgg bu adduna soppikoo seex nga jiitu sëriñ topp ci yow bu ëllëgee ku ca war a topp yàlla xam na ko ndax da ngeen ko man ñu ni ko dana ko man mu ni ko bu ngeen ko defee day dana baax ci yéen ndax kenn ku nekk ci yéen de defal naa la loo xamante ni ni mën ngaa beru bañ a tee gis sa morom te du tee sa àdduna di jàkk waaye bu ngeen ko defee sagalu leen sëñ Tuubaa siggalu leen ma dama bëgg ngeen ànd te yàlla tax loola nag kër gi dund na ko mag ñoo ñi àndoon dund nañ ko kon nun ñi fi des warunoo mujj puso ba mu réer te asgoor ab nawleem du defar mu yàq te wóor na loolu bëggug sëñ Tuubaa bëggug sëñ Muusaa bëggug njaboot gi mu fi bàyyi woon moo tax nuy tàllal loxo ñëpp mbooleem kuréel yi nga xamante ne ni ci biir kër gi la aju moo xam ku sëñ Moussa jaboote ci deret la moo xam ku mu jaboote ci pas-pas la noo ngi tàllal loxo ñëpp kenn ku nekk sa kemtalaayal kàttan mu wóonan la say wi bu sa matt dikkut say wi du mat matt googee nga fexe ko ngàbb indi ko ñu boole say wi takk ko fas yéene doon jaami yàlla yu sax ci di ko jaamu fas yéene doon taalibe Sëñ Tuubaa yu sax ci di ko liggéeyal fas yéene ci toolu sëñ Moussa bii mu ko bàyyeeloon ñu ne ci eh, di rafetal loolu yi daal sëñ Bass mooy yitte ji nga xamante ne ni bëgg na ñëpp bàyyi ko xel eh, ci ni jenn jëmm lañ jëmm ji nag mën naa bari ay cër waaye taxul nag benn cër mën a dem ak boppam ndax cër yëpp ci jëmm ji rek laaju moo xam mu tudd bopp moo xam mu tudd loxo moo xam mu tudd tànk moo xam na ne nu mën a tudd waaye jenn jëmm rekk la jenn jëmm rekk la bu ko defee nag kenn bañ a gis sa bopp ndax loxo bu nawee boppam ba ni damay seq ku beru ji xëy na fa mu jëm du fa tekki dara waaye fa mu jógee it ab liggéey dong la fay bàyyi koo xamante ni nii suñu borom dalaa mane gan ba nga jàpp ni war ngaa beru itam mooy li mag ñi wax rek mooy saakub ciment moom bu nawee boppam ba ni du ma ànd ak bur wetub suuf dana yéex a man lañ koy lañ moo tax nu war a ànd nun ñëpp takkutoo doon wenn say ngir bëgg-bëgg sëriñ bi nu xar ci suñu tànk tubéy te mooy boole suñu bopp fexe itam ba doon ñagub lislaam ba ñu bokkut ci diine dund bët loolu daal moo yitte ji. xam naa bala may ñëw ci sama laaj bu mujj rek ci am solo gu benn am solo mel ni borom xam-xam bu mag dama cee mas di waxtaan ak moom mu ne ma daayira bu ñu defee ne kooku sax bokkul ci yoon mu ne ma bu ñu defee ne murid rek moo ko njëkk def. ne ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu defee jógee màkk ñëw ma dinat madinatu munawwar nee na lu mu njëkk a def mooy seexale mu haajir wal ansaar nee na ñi nga xam ne dañoo téye woon seen soxna ngir gàddaay gi. nee na ñëer lu ëpp ñaar nee dañoo bàyyi seen seen benn soxna mu yëdewoo ñu jox ko seen mbokkum julit ñenn ñi xaaj seeni tool joxe ku mel ni Abdourahman Ibn Awf dañ ne nañ ko woon marché bi nee na mu dem ba bokk ci borom ci dëkk lépp na yonent bi alayhi salaatu salaam ba mënatu euh, nga moo tax lislaam mujj am doole bañ delluwaat Mbàkka moomaat dëkk ba nee loolu bu fekkonte ne bii njëkk bu ñu woon ak bennoo kon loolu du manu loolu ci la Sëriñ Tuubaa jaar doon benn la mbooloo mi Sëriñ Modou Sa doon na ko ca daa ko daan benn mooy sababu daayira kon jërëjëf sëñ Ahmad ci leeral yi xanaa fi ñuy mujj rek mooy diwaanul muridi bi muridina bi euh, ban taxawaay la am ci ñaari fan yi moom it ci njiital sëñ Ousmane mi nga xam ne moom lañ ko dénk moom it yan taxawaay la am ci ñaari fan yi bu càggee incha allah muy suñu laaj bu mu xam naa ne. jërëjëf sëñ Basiru diwaan bi ginnaaw bu bokk yi dajee ba nas ko mu lëkkale bunt kër yëpp sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma moom lañ jiital ca bopp ba mu wóotu fi mboolem ay kilifaam. ngir lu ñuy nas di ko waxtaane eh, ci kanamam lañ koy nase lépp lu ñu ciy def itam moom lañ ciy àndal mu wuutu ci bokkam yooyu yëpp seeni taxawaay nag mooy taxawu kër gi ci yitte yi nga xamante ne ni mi ngi am ci biir kër gi te sëriñ bi joxe ci ndigal dëgg la kenn ku ci nekk am na kees ci biir kër gi waaye teewul nag jëmmi kër gi ci boppam sëñ Ahmadul Moxtaar mi nga xamante ne ni moo nekk ci bopp bi am taxawaay yoo xamante ne ni ci kawam lay wàcc direct bu wàccee ci kawam nag nun njaboot gi rek noo koy taxawee diiwaan bi nag moo tax bunt kër yooyu yëpp ñenn ñu ci nekk ñu jël fa ay jëwriñ boole leen nga xam ni yitte jooju ñoo koy taxaw te du tee kenn ku nekk taxawaay ya nga war a taxaw ca fa la suñ borom boole muy sa bunt nga di ko taxawee loolu itam na nga koy bàyyiloo xel ñëpp bokk na ci ay taxawaayam itam muy màggalu ashrina muharram googu bokk na ci itam guddi mawlid bokk na ci itam ay taxawaay yoo xamante ni mu ngi xew ci kër gi mooy lu kenn def ci biir kër gi ñun ñëpp nu àndandoo jàppale ko ca loola ba yitte jooja mat ñu door a delluwaat ci suñu yitte loolu itam bokk na ci ab ab ànd loo xamante ni diiwaan bi nañu ko taxawe loolu yi nag diiwaan bi defu ko ci lenn lu dul nii li muy jëlee ci nit ñi muy ñaar fukk juróom-ñett yooyu yi nga xamante ni moom lay sas kenn ku nekk par nga di ko joxe te buñ ko boolee muy six mille six cent quatre-vingts wala keneen koo xamante ne ni man na lu ëpp loola te sëñ bi jaral ko ko mu joxe ko ci biir diwaan bi ci yitte yooyu rek lañ koy def dëgg la manoon nañoo gis kenn sas ko ko mu def ko waaye dañu bëgg kenn ku nekk def ci saw ñaq ba bu ëllëgee bu suñ borom di fay boole nu fay nun ñëpp lii daal mooy taxawaayu diwaan bi ñaari fan yi itam bés la boo xamante ni danañ ci feet di liwaat sunu jaayante feet di liwaat ci sunu yitte feet ci itam sunuy pas-pas salaat ci itam taxawaay yi nga xamante ni moom lañ war a taxaw ba kenn ku fi jóge ku ne xam yitte ji lu mu doon xam itam lu taxoon sunu maam ya gàddaay fekk si sëñ Tuubaa loolu itam danañ ko bàyyi loo xel nit ñi ci ziar boobu di ñaan nag ziar boobu suñ borom nangul nu ko te yóbbul nu ko ca ziaru ya gën a kawe nga xamante ne ni daana am te suñ borom di ko nangu euh, rawatina nag loolee sëriñ bi waxoon ba mu nekkee sarsaara ni ko ko fa fekk tàggoo nga ak bàkkar àdduna ak àlaxira te ña ko fa doon fekk seen yitte moo doon ziar fii gën a jege ci ñun ndax dangay ngay dox agsi waaye mën nañ ca am nag euh, loola yool booba ndax du lu jafe yàlla mi koy mayee lu ko yomb la te fiñ koy wut si itam am nañ yaakaar ni mën nañ ko fee am xanaa pas-pas yi rek boo ko defee nun ñëpp nu fas amee ci ngërëmal suñu borom amee ci itam yërmandeem ak tawféexam loolu daal moo doon yitte ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Ahmadou wax dëgg yàlla kàddu yi leer na lool kon mbokk yi bis baa ngi noonu ak soññe bi mu ñaar fan ci kor gi ñu ngi woo foofu taalibe bi mën a nekk mu bàyyi ko xel te def ci yitte. di am yéene itam ci ni ko sëñ bi waxe woon kenn ku nekk ñaar fukki ak juróom-ñett mu uh, fexe ko joxe joxe ko njabootam kon ñu ngi woo ñëpp di ci seenu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.